waaw salaamaaleykum waa Sénégal donc euh, damay génn rek pour euh, wax ak Ousmane Sonko parce que à chaque fois su génnee su ma génnee euh, am na ñoo xam ni peut-être mun nañ xalaat ni da nga ko contre moo tax ngay wax mais encore une fois rek dafa am lu ma koy leeralal parce que dafa dem ci plage bi mu ne am na ñoo xam ni dañ ko interpeller ci affaire u littoral bi wax ak moom ne ko ñoom depuis jamonoy Senghor lañ fa nekkoon te ñooñu. bi ñu fa nekkee mënuñu woon sax am autorisation pour tabax ay étage tey jii ay étage nekk na seen kanam ba mënuñu gis géej gi waaw loolu dëgg la d'accord nañ ko mais yow bu fekkee ni da nga nekk un leader d'opinion ni da nga bëgg a nekk président Sénégal Sénégal nga bëgg a jiite mais réew moom soo ko taalee wala nga yàq ko mais yow doo ci jot donc man dama jàpp ni chef de quartier sax Ousmane Sonko mënu ko nekk ci biir Sénégal parce que benn les mesure barrières bi ñuy wax ci pandémie bi. mu ngi nekk ci plage bi di bëre di def contact direct ci quelqu'un boo xam ne tu dois montrer le bon exemple beneen bi ci topp ngay inciter nit ñi à la violence comme ni ma koy waxee wax naa ko Aly Ngouille wax naa ko président de la République nit mënul nekk ci dëkk chaque jour muy def incitation à la violence ñu bàyyi ko parce que ci biir waxam nee na boy yi temps yee passé xeex ngeen pour couvre-feu bi ñu bàyyi ko jëlee ko 9h yóbbu ko 23h. xeex a tax ngeen am ko bu xeex boobu soo leen ko xeexoon ci littoral bi kon kër yi du fi taxaw donc loolu muy def noonu incitation à la violence la encore une fois tey nag Sénégal dañu bëgg a xam ndax Ousmane Sonko dafa am lu ko nit ñi ragale wala dafa am lu mu xam lu nit ñi xamul wala dafa am lu xew ci dëkk bi dañ ko wax nit ñi parce que nit mënul nekk ci dëkk chaque jour muy def incitation à la violence kenn du ko woo police kenn du ko woo gendarmerie lu ko neex mu wax. te beneen sénégalais bu fi génn wax dara bala moo am 24 heures ñu convoqué ñu convoqué la gendarmerie wala ñu convoqué la police Ousmane Sonko dañ ko war a woo laaj ko incitation à violence bi mu dëkkee mu wax ñu lan moo tax mu koy def parce que nit su fekkee ni encore une fois da nga bëgg a jiite dëkk réew ma da nga fay ñaan jàmm réew yu toj yëpp wax yu mel ni moo ko toj. mënoo taxaw di wax xale yi naa leen li ngeen def ci couvre-feu boo leen ko defoon ci littoral bi kon tey jii lii du fi xew kon kii li mu bëgg mooy indi xeex ci dëkk bi. te nag loolu kuy def incitation à la violence dañ la war a woo mettre les points sur les i wasalaam merci loolu rek laa doon wax jërëjëf.